jaa ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi suivre seen site internet mourides point info comme ni leen ko yàgg di waxee nag ba léegi yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag sama invité yaakaar naa kenn dootu ko nattable muy Khadim Tall euh, responsable PDS euh, nekk njiitu Karimix yi fii ci euh, Touba Mbacké balaa ñuy xuusa ci waxtaan bi nag dañ koy bàyyi mu nuyoog téléspectateur mourides info yi koy seetaan Khadim Tall ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay jaaj waaw jërëjëf soxna Ndeye ginnaaw bi ñu la fayee nuyoo di bu baax di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne yëpp dañuy bàyyi xel Mouride info di leen jaajëfal bu baax di leen jaare ci weeru koor gi nga xam ne ci la ñu nekk di ñaan yàlla suñ borom nangul suñu koor may ñu àggale ko ci jàmm di ubbee suñu nuyoo ci sëriñ Muntaxa Basiir di ko ñaanal yàlla suñu boroom bàyyi ko fi ak mboole taalibe yëpp di ñaanal sëriñ Seex Béthio Thioune mi nga xam ne wàcc na liggéey ci fan yi yàlla suñu borom dolli yërmande ci moom wane la ko sangam bu baax bi nga xam ne doon na liggéey ak moom di ñaanal encore suñu nawle suñu benn karimiste boo xam ne dañu doon ànd ak moom di liggéey di soxna Maram Cissé yàlla suñu borom jël ko moom it yàlla suñu borom jéggal ko wane la ko Serigne Touba jërëjëf. merci beaucoup Serigne Khadim ci présentation bi am na trop trop ah, ñoo ci weeru koor nag Ramadan Moubarak la ñu wax sëñ Khadim en tant que responsable ah, naka ngay dundee koor gi. waaw jërëjëf comme ni ko mbokk jullit yëpp di di dundee rek. Mm-hmm. ndax euh, nekk politicien teewul nga nekk nit comme nit ñëpp nekk julit nekk taalibe Serigne Touba nekk ci dëkk bu sedd di Touba di fi defee koor gi di ci sant suñu borom bu baax di wax ne ñu ngi koy joxe comme suñu mbokk taalibe yi niñ koy defee fas yéene nag euh, dem ci ak bisimilahi rahmaani rahim def ci ay jaamu yàlla yu am solo ñaanal ci réew mi ak réewu julit yépp fas yéene daal lépp loo lu baax la ci weeru koor ñu daan def lu wéru koor ñu fas yok ko ci wéru koor gi nga xam ci luñu nekk nekk weer wo xam suñu borom wax na ci wax ju am solo nekk weer bi gën ci weer yi kon suñu ci duggé bép activité bo xam dang ko doon def mo xam politique wala lanen war nga bayyi xel weer wi nga nekk yok say jaamu yalla ak say ñaan bu ko défé yalla suñu borom def jaamu ci réew mi ak réewu julit yépp allahuma amin yalla na yalla nangu ñaan en tant que responsable euh, bu waxtu julli jotee ndax ci kër gi ngay toog jiite njabot gi wala ngay dem ci la gëna nga jullee fa kam euh, que dañu nekk ay ndaw di liggéey mhm. waxtu julli moom euh, fépp foo xam ne fekk nañu fa rek mhm. dañuy bàyyi lépp lu ñu doon def dem jaamu ji suñu borom mhm. ndax nekkuñu mag moo xam ne dañoo féete ci kër gi nekk ba nga xam ne su waxtu jotee dinañu jóg pour woo njaboot gi ñu nekk suñu ginnaaw pour ñu mën a jiite julli gi waaye ay ndaw lañ di liggéey waxtu yi ci bari ci place yi nga xam ne fa la ñuy liggéey fa la ñuy fekk bu ñu fa fekkee nag danañ jóg lépp loo xam ne doon nañ ko def ñu bàyyi ko dem jox yàlla suñu borom waxtoom bi suñu paree nag ñëw continuer suñuy activité ak suñu liggéey bi nga xam ne ci la ñu nekkoon. Uh-huh. jërëjëf mbokk yi ba léegi yéen a ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou nii lañ koy wéyalee ak yéen rek duñ toog ak suñu invité na rek te duñ dugg ak moom ci li nga xamante ni si ci lay yëngatu muy wàllu politique uh, Khadim Tall nekk njiitu Karimix yi fii ci Touba Mbacké Khadim ginnaaw loolu jàllee lan moo la dugal ci politique waaw jërëjëf ci question bu am solo boobu maanaam yàlla xam na ñun ay ndaw lañ booy xool at yi sax bareegul waaye suñu borom mooy bind ku ci nekk am fu la jaarale yàlla suñu borom nag xiirtal ñu ci jë boole ñu ñi nga xam ne ay ndaw la ñuy def politique di ko defee ci diwaanu Touba fas yéene nag di ko defee ci wormay dëkk bi ni ko sëñ bi bëggee ci yar ak teggin politique nag li ñu ci dugal maanaam lu ndaw la maanaam mbiru taalibe moo ñu ci dugal ndax man dama bëgg sëñ Saliou Mbacké ma gis président Ablaye Wade ni mu meloon ak sëriñ Saliou jamono bu boo xam ne daana fi ñëw nag daanaa bokk ci ndaw yi nga xam ne dañ daan dem di ko teeru yi ñu ngi daan taxaw fale ci ancien garage Dakar bi fas yéene topp ci moom ba nga xam ne aksi ne kër Serigne Saliou su ñëwee ba kër sëñ Saliou nag ñun dootu ñoom agsi mën a dugg ci biir mm-hmm. wala mu dem résidence Khadim Rassoul su boobaa ñun foofu lañ mën a yem ñu daal di dem daal di daal ñibbi bi ñu nekkee di def noonu di ko def ba benn soxna boo xam ne ñoo bokkoon ko ñu mu daan def politique mm-hmm. bi mu déggee loolu woo ma ne ma Khadim yow dégg naa da bëgg ab Ablaye Wade heure bu fi ñëw da ngay dajale xale yi naa leen nañ dem teeru ji ko mm-hmm. ma ne ko waa mu ne ma ne léegi nañu ànd ma ànd ak moom ci noonu muy soxna maam Awa Dieng ma koy nuyu. ci noonu laa duggee ci politique nekk ci nekk ci ak moom ci parti démocratique sénégalais. yàlla def ñuy dem ba ñàkk pouvoir bi en 2012. Euh, moom mi ma doon àndal mu changé kan ànd ak mu du Diagne Fada bi mu wooyee wax ma pour ma continuer ak ñoom ma ne ko noonu man nag li ma boole woon ak président Wade ba léegi ca laa nekk. ci politique moom PDS laa nekk président la lay lay jàppale. ci noonu laa continuer amaat ñeneen ñoo xam ne toppoon naa ci seen ginnaaw mais su ma ci toppee ba ci yàgg ñoom it dañuy changer camp dem faneen ma daal ne ah kam ko yàgg naa te xaw naa ci am tuuti expérience est-ce que léegi jotul nag ma jéem a jëlal mbir mi sama loxo bopp ci laa continuer samay activité ci politique nekk su nekk ci ginnaaw Karim Meïssa Wade 2013 bi ñu jàppee Karim mouvement yi bari ci la ñu commencé nag dugg di liggéey ci mouvement de soutien yi. ànd ci ak le président Karim Meïssa Wade mu nekk suñu xarit. nekk suñu mag ndax dañuy woo téléphone ñuy waxtaan ak moom. mu ñuy soñ ci liggéey bi kon ci noonu daal lañu duggee ci politique ba jamono jii ñuy waxee yow fas yéene continuer ànd ci ak moom liggéey ngir Sénégal jëm ci kanam liggéey ngir suñu commune dem ci kanam ak département de Mbacké. xaadim ci yooyu leeral am na solo torop ci loolu laay duggee ndax euh, mën naa xam ba xam Karimix yi ñaata nombre lan fii ci département de Mbacké wala région de Diourbel bi. neexul a neexul a wax nag nu mu toll. parce que mouvement yi moom chaque jour mu ngi judd. Euh, presque doo dem deux mois wala trois mois yoo xam ne duñu la contacter ne la am na benn mouvement boo xam ne war nañ ko lancer ñu def délégation dem ànd ci ak ñoom waaye mouvement yi moom. trois mois yoo dem dafay yokk mouvement yu baree bari mënuñu ne leen temps la actuellement ci la toll waaye daal li wér mooy union des karimistes bi nga xam ne ñu ngi ci nekk di liggéey ak Karim Meïssa Wade mu ngi toll ci seize mouvement mouvement bu ci nekk am na tour am président am coordonnateur ak membre yi nga xam ne ñoo aju ci mouvement yooyu mouvement yi nag suñ dajee dañuy daal di am benn coordonnateur coordonnateur départemental nga xam ne man la ak ñi nga composé bureau bi maanaam président yi ak chargé de communication massification ñooñu ñëpp ku ci nekk am nga sa mouvement bopp waaye teewul yaa ngi nekk membre ci union des karimis kon mënuñu jekki-jekki rek daan ne la nombre karimis yi nii la toll waaye macha allah daal xam naa ne ku ñu ëppul ci département bi wala ci région bi yaakaar naa ëppoo leen te parrainage bi nga xam ne doon nañ ko defal président Karim def nañ ci loo xam ne mën nañu au niveau national international amul kenn koo xam ne ëpp ëppale na union des karimistes maanaam karimistes yi nombre bi nga xam ne pare nañ ko teg ko ci loxo Karim Meïssa Wade. xuusee sax ñu gis ni que parrainage bi mu ñëwee dangaa aw sa yoonu bopp àndoo ki nga xamante ni si moo nekkoon euh, ci seen njiit ci karimistes mooy muy euh, Serigne Cheikh euh, Mbacke Bara Dolly dangaa awoon sa yoonu bopp dem jébbal ko sa bopp lu waraloon loolu. non xam nga xam nga politique moom ñun ñëpp ñoo bokk PDS. maanaam ñoom kilifa yi ñoom ñooy suñuy kilifa ci wàllu politique ci département bi mm-hmm. ñun ay ndaw lañ rek dafa am liggéey boo xam ne nag su ñëwee mm-hmm. ndaw ñi dañu gën a sawa dañuy gën a oyof mm-hmm. mag ñi te ci mbiru parrainage bi ñëwee ñoom mag ñi ñoom ñëpp bi commission nationale bi ñëwee fii ci département bi dañ na léegi nañ jël ndaw ñi jiital leen pour ñoom ñu nekk coordonnateurs yi nga xam ne man bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dañ ma tànnoon ma nekk ci coordonnateur bi doon coordonné liggéey bi mhm. ñoom dañ leen a noppaloon ci parenage bi mhm. te parrainage bi dañoo xamoon mbiru xale la te dafa nekkoon mbir moo xam ne daf ñu yitteeloon mhm. ndax bi mu jour bi nga xam ne ñu ngi lancé parrainage bi président Karim daf ma woo jour bi ñuy dem Dakar di war lancé parrainage bi bi ma wooyee wax ma ne ma am nañ yaakaar ci yéen am nañ yaakaar ci tuubaa bi ma waxee loolu ma ne ko président dalal sa xel incha allah lépp loo xam ne am nga ci yaakaar wala am nga ci bëgg-bëgg fii ci commune Touba Mosquée wala ci département bi incha allah dinañ ko yëkkati teg sa loxo te bañ demee ba ci cëppaandaw la yaakaar naa amul benn département wala benn région boo xam ne ëppale na département de Mbacké wala région de Diourbel loo xam ne yëkkati nga jox nga ko Karim Wade ci wàllum parrainage ba moom xam na ko sant ñu ci woo ñu ci gërëm ñu ci xam ne liggéey bi mu ngi dem ci kanam ndax ay ndaw moom suñuy liggéey nekk benn lépp lu luñ bëgg mën nañ ko def. li nga lu tax jaalu leen ci parrainage yi. waaw loolu xam nga régime bi fi nekk moom xam nga ñun validé nañ suñu parrainage ñun bi ñu dugalee suñu parrainage fële conseil constitutionnel. maanaam validé nañ ko mais nag bi ñu demee ba ci yeneen état bi ci la ñu téye Karim Meïssa Wade mais wàllu parrainage moom jàll nañ ci yóbbu nañ nombre bi nga xam ne doon nañu ko laaj biñ ko vérifié nekk na loo xam ne lépp validé nañ ko mu nekk lu baax ndax ci parrainage bi ñu ko doon defee mënuñu ñu woon a kale ci parrainage ndax ñun porte à porte lañ doon def bunt kër par bunt kër bu ñu duggee toog waxtaan ak famille bi wax leen Karim Wade la ñuy collecteel ay parrain su ko defee ñoom dañuy sawar ñeen ñi sax dañu daan toog ndax liggéey bi metti woon na ñoo ñuy woo téléphone nañu ñëw leen yéen lañ ñu xaar booba léegi moo taxoon parrainage bi moom amuñu ci woon benn jafe mm-hmm. defoon nañ leen war a def mm-hmm. yóbbu suñ nombre pare mais gouvernement bi fi newoon doon na def ay affaire pour fexe ba Karim Wade du mën bokk ci élection yi. ci loolu laay xuusee ñu gis ne que ci loolu laay ñi ci jógee dem ci yeneen parti dafa bari trop loolu est-ce que du leen suuxel. non non bariwul xam nga maanaam di mbubboo Karim wala. parce que ni koy faral di waxe boy xol fi ci commune bi wala ci département bi pour nga xawa am ben dayo bi wala ñu di la xel il faut nga ne man Karim sila, wala Karim Wade lamay may mais gisuma Karim Meïssa bu engagé bo xamné ndax li tax mané la Karim Meïssa du jog di dem Karim Meïssa bo gis bi mi jog di jappelé Karim injustice mo taxone mu jappelé Karim ndax 2013 amna ño ñoo biñ ne commencé def politique 2013 la te 2013 nekatuñ won ci pouvoir amatuñ won maanaam kuy xool sa moyen wala intérêt personnel. Mhm. doo fa toog mhm. ñun ñooy jël suñu xaalis di cotiser di def suñuy activité di def suñuy manifestation mhm. xam nga kooku kon mënoo ko nax wala nga woo ko ne ko kaay ma jox la nangam mu dem. kon dañuy jàpp ne ki ñëwoon pour. wut tur wala ki ñëwoon pour wut xaalis. gis nga comme ay ñoom Lota Dieng ay ñoom Khadim Fall ñoom ñëpp. est-ce que wàññiwul dara ci nga xamante si ñooy Karim Mexe bi ñu fi jógee. non xam nga non xam nga politique ku sañoon kenn du génn ci yow. mais ñoom yàlla def na bi nga xam ne ñu ngi dem di jàppale ji APR. Mhm. yàlla def na ñun ak ñoom séparé wu nañ nekkatuñ woon ci ñoom ñenn ñi ngi ci yeneen coalition ci coalition yi nga xam ne bokkoon nañ ci yi mais karimiste boo xam ne daal mi ngi ci union des karim ñu nekkoon di liggéey ak ak moom di liggéey liggéey mucc ay ñu gisuñu ci koo xam ne daal bàyyi na Karim Wade ci élection présidentielle yi dem jàppale ji benn candidat mhm. ñun gisuñu ko ci mhm. ñooñu nag dëgg la ay jamono ca ginnaaw ay membre lañ nekkoon ci ñun doon liggéey ak ñun mm-hmm. waaye avant ñuy àgg ci candidature yeeg dem ci ay campagne yooyu wax dëgg si yàlla ak seeni activité arrêté woon nañ ko ci union des karimistes bi nga xam ne ci lañ doon liggéey ba nekk ci yeneen parti wala nekk ci yeneen mouvement doon fa liggéey mhm. kon ñooñu suñu demee du leen mën a jàpp ne ay karimistes la yoo xam dañoo bàyyi karim pour dem dem dem dem dem APR wala faneen mën naa xam ba xam yan relation nga seq ak euh, Cheikh Mbacké Bara Dolly sëñ Cheikh moom relation bu rafet laa seq ak ñëpp xam nga man politique euh, awma ci awma ci maanaam noon ci ñi nga xam ne samay sama sama waa parti leen ñoom ñëpp dama leen a jàppe samay leader samay responsable leen ku ma ci woo ba ma soxlaa damay ñëw ndax man résultat lay wut te kuy wut résultat doo nekk di xool say kilifa wala ñoo xam ne ñoo la jiitu ci parti bi mm-hmm. ngay xoolanteeg ñoom yenn yenn kii day yàq lu bari daal mm-hmm. man ñoom xam nañ ne sax Xaadim fu ñu ko gisee muy dox lu jëmal ka kanam Karim Wade lu jëm kanam PDS ci lay dox moo tax awma ci ak kenn benn problème wala wala dara. élection yi passé ni euh, Karim yi amuñu benn candidat ginnaaw bi na saxalee ki nga xamante ni si moo nekkoon seen candidat. waa xam nga Karim aw tur la mais dañoo bokk ci parti muy parti démocratique sénégalais te soo bokkee ci parti maanaam la tënk ñépp daf lay tënk ak lépp lu ñu bëgg Karim ak lépp lu ñu liggéey ak lépp lu ñu mën di daj. su décision parti bi daanoo rek ñun dañuy rangé wu ci ginnaaw décision bi ndax sonn nañ ci sept ans ñu nekk ci terrain bi di liggéey di daj lu ne di dégg lu ne ñu dem ba élection yi des deux mois ñu ñëw ne la sa candidat bokkul sa candidat mënul dem metti na ci xol mais nag du tee dañuy am gëm-gëmu suñu borom xam ne ay jaam lañ dañuy wut suñu yàlla ne woon 2019 bi Karim moo ko moom kenn mënu ko tee bokk ci élection yi mais yàlla def na def nañ leen war a def suñu borom wane na wax na ne Karim mënul bokk ci élection yi dañ koy gëm rek xam ne dogalu suñu borom la ak maanaam pexe yi noon ñoo xam ne seen doole la ñu utiliser pour téye Karim ba du bokk mais du yàq dara ci yoon mi nga xam ne ci la ñu nekkoon di liggéey pour fexe Sénégal yi gën a xam Karim Wade pour Sénégal yi gën a wóolu Karim Wade ba jox ko réew mi ndax jàpp nañ ne Karim nekk président de la République njariñu Sénégal la ndax boo xoolee bi fàppam nekkee am na liggéey yu am solo yoo xam ne doon na ko def ci ministère yi nga xam ne jaaroon na ci mhm. def ci liggéey bu mucc ayib mhm. ah, jërëjëf xaadim ci yooyu leeral am leeral am na solo trop ah, for na nag ci benn uh, wewu béy ñu ni ko uh, élection yi passé am na ay leader yu la diggoon 4 millions ak oto ndax man nga cee indil ay leeral waaw gis naa lu gis naa lu ëpp lool sax nag mais man li ma la waxoon sànq bi may dugg ci politique bi mhm. du woon ay xaalis ak ay nga ñëw téye nañ Karim nga ñëw ne ma kaay ma jox la 4 millions 10 millions nga dem loolu dugaluma ci woon gëm-gëm moo ma boole woon ak président Ablaye Wade bi président Ablaye Wade wàllam wéyee ndax bi mu fi nekk ndaw laa booba aw ma woon benn dayo bi wala benn taxawaay bi ba mën a fésal sama liggéey ci moom léegi nag yàlla suñu borom def na ay atam sori na di ko ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi doomam taxaw na bëgg na. incha allah dañoo engagé wu pour ñu àndoon ak président Wade ba jox ko réew mi ñun ñu bokk ci ndaw ñi ànd ak président Karim Meïssa Wade ba jox ko réew mi incha allah. tey laa gën a engagé wu ci liggéey bi ni ma koy waxee sama mbokk Karim si li nga xam ne doon nañ ko liggéey avant deux mille dix neuf ba deux mille dix neuf man xaari fàtte naa lépp mm-hmm. li nekk sama kanam mooy takkaat li fas yéene continuer suñu liggéey jëmale 2024 ànd ko président Karim incha allah. merci beaucoup Khadim ci lay locale yaa ngi ñëw ndax mën nañ xam ba xam en tant que Khadim Fall wala Karim Meksi euh, fas yéene nañ posé taxaw nekk li nga xamante ni si mooy conseil départemental bi. waaw xam nga ay. waaw xam nga ay ndaw lañ. di def politique sooy def politique nag amul looy luy ñëw nga ngay naan bëgguma wala bëgg naa. Mm-hmm. mais li ma la wax ci parti la ñu nekk Karim si Tour la mouvement de soutien yépp ci PDS lañu nekk ay ndaw lañ ñu ngi def politique yàlla def na am na lu ñu ci jot a xam te ànd nañu ay kilifa yoo xam ne mën nañu gën a wan yoon ñu gën a continuer liggéey bi su suñ parti wanee ne ñun war nañ mën a nekk ci conseil wala ñu nekk président wala lu mu mën a doon ñun pare nañ engagé wu nañ ndax gëm am nañ gëm-gëm bi te am nañ xam-xam bi donte néew na am na loo xam ne ah, xam nañ ko loo xam ne suñ ci àndeek suñuy kilifa jàpp nañ ne mën nañ am résultat boo xam ne suñu parti dana ci jariñu mais ñi ci ëpp solo muy commune bi ak département de Mbacké gën ci gis seen bopp ndax ci département bi lañ dëkk di liggéey suñu defaree département bi rek mel na ne defar nañ suñu bopp suñu yàqee département bi yàq nañ suñu bopp kon moo tax li ci jiitu mooy am gëm-gëmu ne dañoo war a defar département bi loolu nag soo ko amee am yéene bu la neexee lépp lu ñuy joxe am nga sañ-sañu taxaw laaj ko bu ñu la ko joxee nga liggéey ko na ko sàkkoo woon. ambition bi mooy liggéey fas yéene lépp lu ñu doon def benn. Mhm. ba turu Karimis moom waxuma Sénégal mais ci àdduna bi li Karim may Wade am néew na nga gis benn politicien bu ko am yaakaar naa mën naa wax sax kenn mësu ko am ay million de Sénégalais ay ndaw ñu bàyyi seen lépp engagé wu mhm. nekk sa ginnaaw di dégg lépp mhm. da ngay dox ñu la yéen da ngeen a ñàkk fayda. yéen Karim nekku fi ngeen nekk di liggéey. mooy ambition waa Karim si. ambition bi mooy liggéey. rek xam nga nit moom lépp looy dugg na la ci gëm-gëm dugal nga gëm ne man li may dugg dama koo bëgg li may dugg maanaam am na ñu taxaw ne ma du dem am ñu taxaw ne ma kii gëmul dara kii boppam moo ko tax di jóg di dox di yooyu ñu lay wax yooyu yëpp nag dangay ngay da ngay teg lépp ci sa kanam ba gis ko. fas yéene nag jéggi ko wàcc ko ci ginnaaw te soo ko rombee bul ko xoolaat kon li may wax Karim Sy rek mooy maanaam xaj na sax duñu wax ñu xool ci ñun wala ñeneen mais am na ay kilifa yoo xam ne doon nañ ànd ak président Ablaye Wade maanaam 26 ans d'opposition ak ca jamono yooyu li li Ablaye Wade doon daj te lépp dañoo bàyyi lépp ànd ak moom rek muy metti ñuy ànd ak moom muy metti ñuy ànd ak moom ba 2000 yàlla suñu borom jox ko réew mi mu ànd ak ñoom ci 12 ans yi liggéey ba yàlla suñu borom delloowaat ñu ñu nekkaat opposition. kon gëm-gëm boobu rek laay wax xale yi ñuy xool jël Ablaye Wade teg seen kanam jafe-jafe yi nga xam ne traversé na ko. mais ba suñu borom nee tay la kenn mënu ko kenn mënu ko téye dafa ñëw. ñëpp gis liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko ci réew mi kon Karim Meïssa loolu laa leen wax lépp lu ñu defoon daal avant 2019. nañ ko faté xamné dañoo war dugg ci lu bees indi liggéey bu indi taxaway bu bees su ko 2024 dina fekk ñu gëna paré pare taxaw bu nga xamné da nañ mëna jël Karim Wade jox ko réew mi inshallah inshallah yalla ñu ci yalla yobbu ak jamm ak salam lay tag mbokk yi lay sétane sant bu baax rek di leen gërëm di leen wax né su féké wax ji rek am wax nañ ci lo xamné xawna dëng wala mu laal kenn ñukoy jéggul xamné doomu aadama matul suñu sañoon buñ wax bu bayyi ku ci nekk day gis ne li ñu wax tane na wala waaye bu fekkee daal laal nañ kenn ñu ngi koy jéglu bu baax mm-hmm. di ñaan suñ borom may ñu koor gi nga xam ne ñu ngi ci fukk bi nga xam ne moo ne ci digg bi lépp lu suñu borom wax rek jaamu yàlla buñ ci def rek suñu borom nangul ko may ñu àggale ko ci jàmm mm-hmm. di leen sant di leen gërëm di leen wax ne kontaan nañ sant sama mbokk karimis yi nga xam ne maa ngi ñoom ñi ngi ànd di liggéey mm-hmm. di sant samay waajur ñoom ñi nga xam ne ñoom it def nañ ci man li war ba nga xam ne tey mën naa toog di wax ay nit di ma diglu jërëjëf. bokku Xaadim ñu ngi lay remercier bu baax tamit waa Mouride Info parce que yombalal nga ñu ko amuñu ci benn jafe-jafe teeru bi rek dalal gi rek ah, macha allah doy na lépp ah, mbokk yi ni ngeen koy ànd ak Ndeye Thiam Saliou saa su nekk yéen ngi woon seen biir émission koor gi ak Ndeye caam Saliou gis ngeen sama invité kenn dootu ko naatable Xaadim Taal ah, nekk ndaw la nga xamante ni si moo jiite fii ci Touba Mbacke Karim si ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ñu ngi leen di remercier bu baax baax a baax di leen jox dig daje incha allah suba ci beneen invité jaa ngeen